basumo basumo mbare suko nonko abidje iba famale dia le sénégal ou l'afrique ou l'humain est-il amnésique amnésique j'ai dit pas amnésiste amnésique car l'humain ne pardonne pas Pourquoi l'humain ne pardonne pas C'est parce que l'humain n'oublie pas. On peut te dire que j'ai oublié, mais j'ai pardonné. C'est des faux problèmes. Le Sénégal est un pays amnésique, oui. Si je me souviens du jeune Cheikh Wade, si je me souviens de François Mankabou, Si je me de Fulbert Sambou, Didier Badji, sa femme qui vien de nu quitter. Si je me souviens de mon petit, de Bignona, Boy Baifal Fusion, jeune mancagne Baifal, si je me souviens de lui. Si je me de nos morts, si je me souviens des morts qui sont en train d'être retrouvés, même en Gambie, dans des conteneurs qui étaient enfermés dans des maisons. Si je me souviens de euh, tout ça, je me dis que le Sénégal n'est pas, l'Assemblée nationale n'est pas en train de voter une loi d'amnistie, non, mais une loi amnésique, c'est-à-dire oubliée. Parce que l'amnésique, c'est-à-dire une personne qui a perdu partiellement ou totalement la capacité de réfléchir, sa capacité mentale de se souvenir de ce qui s'est passé. Madame, ay jinne Le Sénégal est un pays de djinn jinne du dellu ginnaaw kanam rek la jëm du gis démb foofu lañu ñu état yóbbu tey loolu lañ ñu wooteloo tey assemblée nationale moo tax tey foog ñu def ko antithèse ak thèse yuuxu ne d'accorduma ci loi bi am ñu ne d'accord na am ñu ne d'accord ma ku far fenn munoo àtte coow lii munta nekk ndax dañoo bëgg a ngeen fàtte paa ngeen bale waxuñu leen amnistie amnésique ak amnistie bokkul dañ leen na ngeen fàtte sagam senegal ñoo mun fàtte Mamadou Dia fàtte batolo Joola fàtte Omar de Diop fàtte 68 fàtte 1988 li fi xewoon ci événement naar 89 ba commissaire aronissi nekk à direction des élections commandant Fallou Wade mën fi dem trahir Abdou Diouf ñëw jiite wat Macky Sall ngeen fàtte ndax moom jote naak France façon jote boo xam ne maman bi day jaxase lépp te jaxase lépp bi grand coow li sa kaw lay këpp moment bi affaire bi metti na tey assemblée tey j'ai le suivi tey toute la journée mais dama jékki-jékki ndeysaan ma ne au Sénégal Sonko bu d'accord ci waxtaan nii conseil constitutionnel def lu ko neex ndax France mënul si moom dara mais sama waxi démb laa leen di waxaat ñi fa ñëkk ñëw pour négocier recevoiru leen deuxième bi recevoir le protocol de Cap Manuel qui a voué à l'échec total mais grâce à qui CPI biñ fay dem kenn accompagné wuñu personne ne nous a accompagné CPI du secrétariat d'État américain ñoom ñëpp dañ ne woon tekk ci coow li foog ne ay terroriste lañ ko sékkal biñ ñuy tëj ci kaso bi Juan Branco bi muy ñëw ñu koy taraxal kenn accompagné wu ñu. ñan ñoo tax tey adduna yëg lii ak lax tey lan mooy jàmmu réew mi ak tey ñun tey lan lañ mën teg tey ba xeex du am ba duñ ñu gabonisé bu Sonko bokkoon ci élection yi ma xam ne d'accord na ci protocole bi alhamdulillahi rabbil alamin bokkul il ne veut pas de sa candidature parce qu'il a déjà un candidat sur place qui peut faire même deux mandats mais foog ñu nangu ne foog ñu nangu ne Bassirou Diomaye Faye doomu Sénégal la te ki ñu naan kaw kaw mooy ki intègre ki ñu naan boy town mooy ki ñu intégré ndax ki ñu naan boy town xamatul tubaab la xamatul nit ku ñuul la. yenn patriote mairie dee nag hypertension ndax jàpp nañ Sonko tëj nañ Sonko deux ans def nañ Sonko ñuy daanu di dee rek. ñii daanu di dee rek ñii daanu di dee rek et ñooñu nag ah ndax si na sibi la ñu bokk bokkuñu ci. am na bi ba Madiambal Diagne bi jël ay suufu jàmbur sàcc ko par force tabax ko Macky Sall da ko ci prévoir Macky ñëpp la prévoir ci am na bi. ñun ñii mu jiñ ay chefu terroriste ñëpp la prévoir ci am na sibi am amnistie sibi man personnellement bugguma ko dégg man personnellement bugguma dégg amnistie sibi lu tax bugguma ko dégg bu ma ko nangoo dégg rek c'est parce que dama def waw ku def li ñuy jiiñ nga nangu ku deful kenn du la defuma nga bëgg ma booy dama lay baal déedéet loo may baal man moo tax aw ma sax habitude wax nit baal ma ak ay jour fête xaar ba korité tabaski ma naan la baal ma ak laajal ñi ma xam dama lay romb sans allure nekk samay bagage aw ma sa jot je passe temps je ne triche pas ay papa ak yaay sax sekkuma ko ñoom ay baalantu ak weeru koor yooyu baal ma ak yi non je passe temps sincèrement man munuma ko comme ni may laay fay nii korité ma ñëw ne baaleen ma ak ma ñëwaat saaga nday xaabaabal tooñaat du ko def mooy amnistie bi man defuma bañ may amnistie defuma tey ay Tall Sall wax Abdou mbaw moom il a des problèmes problème crypto personnel mais on va gérer on va lu yàgg la day wax ni lan moo gën a garaaw nekk ay séparatiste moom buy wax ci Casamance day mën na kuy wonk kuy fat qu'est-ce qu'on t'a fait nee nañ leen Casamance ay séparatiste la nañu leen wax dëgg ñoom lan moo tax ñun fii buñ ñëwee fii tubaab jël ñu en charge jox ñu asile du ñu nangoote ñun ñu dellu Sénégal laaj leen ñoom lan la ñu signé si kayit yi ñoom état Sénégal laaj leen lan moo nekk seen diggante Casamance ba ñun buñ ñëwee ñu considéré ñu ngi suñu dëkk mooy Casamance ñoom laaj leen lan moo nekk ci document yi. loolu après la ñu ngi ci lii ñoom ab Mbow ak ay satatal Sall wax duul duul Mbow Casamance on les a jamais amnistié kon ñoom Pa Kourouma duñ fi nekk fii depuis quarante ans jamais état Sénégal bu ne amnistié na xam nga lan la amnistié état Sénégal trois cent quatre-vingt-trois yi Abdou Diouf defoon première manifestation bi quatre-vingt-deux Abdou Diouf dafa rey ñëpp il a tout le monde maire yi paa yi doon fecc biir sukku papaay loolu dama koy répété de allez sukku papaay boobu wàcc si jëm préfecture fala la Abdou Diouf rayé woon suñu papa yeeg suñu yaay yëpp ñu dee par centaine mu def fosse commune loolu la ñu loolu moo doon amnistie mais pas ñoom Kourouma Sagna nii Abbé Diamecoune ana Abbé Diamecoune ba ni muy deewee mu ngi résidence surveillée kon donc lan mooy amnistie ba ana Salif Sadio nee nañ leen 92 après 92 ils ont amnistié kon Salif Sadio lu muy def si àll bi ana Paul Tamba bi ñu dóor bal mu dee kon lu mu doon def si àll bi ba ñu door ko be bal mu dee ana ñoom ma mu di Diédhiou ana ñoom Seydi Badji lan moo tax ñoom ñu nekk ci àll bi César Atoute lan moo tax mu nekk Guinée Bissau waaye état da ngay ni duul da ngay ni fen sénégalais yee xamul lu xew xale yi ñoo xamul lu xew moo tax da ngeen di toog assemblée ah, di fen gis nga tey dama déglu tey assemblée. Ndeysaan fi ma toog sama grand malien ne ma grand ne ma reste aujourd'hui qu'est-ce qui se passe man leen non moi j'ai honte parce qu'on veut nous faire oublier tout temps en mentant à la jeunesse la jeunesse prenez vos responsabilités amnistie sibi lenn rek ngeen mun a def ma maay gagné suñuy élection xam nga mooy lanam Macky Sall day coince France ndax xam na ne Amadou Ba du mos a gagné Amadou Ba bëggul démissionner pour bloquer waat processus bi Macky Sall di am lu muy toogee léegi nag da koy bàyyi gars yi mu dem man nag li neex li neex peuple bi moo ma gënal li neex système bi état jël na ay responsabilités am amul lu ñu waxul ci conseil constitutionnel ne woon sama ñaari pas juge yi moom damay dee rek mais gën leen doon jullit bëriw fi koo xam depuis bi ngay gune xam naa li may wax tax na Cheikh Tidiane pour bañ coow am nag pour bañ coow am élection le 31 mars lay nekk mais ndax dinañ nangu ne Bassirou Diomaye fay gagné loolu nag laay ñëw di ñaan yow Macky ah tey damay ñaan de bu fekkee di nga ko nangu fekkee ndax xam naa la sa xol antenne tu ko doo def ak ñoom passation de service mais yéen ñi candidat yéen 19 yëpp laay waxal gis ngeen nu gis ngeen nu tubaab mujjee def ak Macky Sall dugal ko ci guuta ne ko ba teg ak Amadou Ba léegi kan mooy weer Macky Sall tubaab amul sentiment intérêt la xam tubaab amul sentiment intérêt la xam moo tax Paul Montagne sama chef mu ngi fi juif dem ko miin mu foog ne dem ko miin coow li jot na ma saaga ndeyam na ko dama jàngiwaat tubaab nga demal jàngiwaat xale bu tuuti am 21 ans bëgg a ñëw di commander say baay te xamoon nu ngay waxee il parle incorrect ma saaga ndeyam ci kanamu entreprise bépp démissionné ab CDI CDI yaa ngi fi maa ngi sama carte F man gune bu jàngul doo doo yóbbu foo ma yàlla mënul yóbbu mënul nekk. am amnistie bi. lum ñu arrangé xam ngeen lan laam pour ñu dem ci campagne bi Bassirou gagné ndax foog Bassirou gagné ndax kaw kaw baa ñu gën ñu ñëpp foog Bassirou gagné booy la jeunesse Macky Sall midi pile wala 13h léegi may nañ la ba 14h lillaay war a suuli amnistie bi boo bëggee coow li jeex le 31 mars grand nangul élection dem le 31 mars Youssou suture Amath Suzanne Camara ngir yàlla wax leen ci parce que tubaab bi dañ koy sacrifier bu dof dofloo tubaab bi si boppam biir Sénégal dañuy reyee Macky Sall ak militaires yi. moo tax Macky bu dee élection day am jëlaatal doomi Sénégal ñu garde la benn sa garde sa garde bi yëpp cofal laala lépp sa garde bépp dóor ko mu daanu. mais vidéo yi mënoo ko laal parce que loolu ay état la kenn du si wax man je ne vais jamais déshabiller l' état jamais de la vie. 13h 13h15 balaa ñoo julli tisbaar li laay war a suuli waxal ne Bassirou Diomaye fay gagné na balaa 20h gars yi di jaxase carte bi léegi nungu lépp ne léegi ñëpp perte nañu te mu leer leen ne Amadou Ba day perte ñu taxaw ne gagné na buñ ne hoo ñu jël réew mi jëm ko franciser bu boobaa nag yow yaa ñuy bàyyeek waa France su boobaa nag yow tam. ñun dañuy am possibilité topp la mën a dal sa kaw ndax su boobaa coup d'état la affaire bi day jaxasoo te bu coup d'état amee Sénégal comme li mu leen ko waxee woon y aura coup d'état sur coup d'état après huit mois ou après neuf mois mais y aura par force coup d'état mais le coup d'état de la France ne passera pas balaa loolu nag Macky Sall moment bii nag conseil constitutionnel moo yoroon réew mi tey nag jàmm Sénégal tey tegootul ci loxo Ousmane Sonko. tegootul ci kenn der kese Casamance kese mën na développer Sénégal maki wax sa booy yi moo gën wax ak sa jaam yee wax sa booy yi moo gën wax ak sa jaam yee booy yi dara dara damal kaso ba xool leen ci bët wax ak ñoom point moo gën wax ak sa jaam yee kii ñëw jël Sénégal jox ko France wax ak sa booy moo gën wax sa jaam yee woowal suñuy officier général tin xam na dëgg bi noo waawal lépp teg ko ci loxo général tin man si Sidiki Kaba du mu ko wax dara ndax droit de l'homme la moment yi c'est trop tard pour que muy diriger jëm élection moom xam naa droit de l'homme la bu fekkee yow la faral Amadou Ba du gagné bu fekkee yow la faral coup d'état du am mais nag il faut préparer tes arrières grand treize heures ngir yàlla li laay war a suuli waxal ne Bassirou Diomaye Faye a gagné les élections coow li Franco laay ku nekk dem loolu rek laa lay ñaan da nga newoon nañ la ñaan njëkk ak tey pour nga jóge fi loolooy sa jóge jàmm loolooy sa jóge jàmm gis nga ne temps yi t'es plus stable dans ta tête tu bouges partout yaa ngi bouger comme kaña nguur da ko jar amnistie bi bu jàllee benn affaire rek ko mun jàllale treize heures pile nga ne Diomaye gagné na ma ñàkk sama ndey kon nga xam ne xoola soxla woo woon amnistie Sénégal il est amnésique les soo sont amnésiques gis nga Sénégalais bu amee bànneex day bàyyi mu waaye gars yi nañu bàyyi mu sedd ñu bàyyi mu sedd lu leer laa lay wax mais boo jéemee bàyyi tubaab bi dem ak suñu élection ne Amadou Ba gagné na ñu fipp ñu ne coup nga foog ne dañuy nangu gendarmerie dirigé wala les officiers français la diriger ça se passera pas comme ça wala diriger ba mu neex loon jël Idrissa Seck teg ko parce que moom c'est le chef de lobby ñu ñëw ne waaw Sénégal du def comme Mali du def comme Gabon c'est archi faux gouvernement de transition la ñuy def avec des civils ça ne se passera pas comme ça gars yi nag ñu ngi jubilé ndax xamuñu lu xew xeeb bi ngeen xeeb doomu jàmbur ji bi ma ko yëgee ba tey gis nga da ngay bés fii non du jomaay du jomaay ba ñu woola ne waaye gain gain bi du baa la waaye booy bi xoola fu mu jógee yónnee la ay vidéo man leen ah kon yéen lii moo leen déranger si booy bi man samay élève ñu dëkkoon ci àll àll bi dama loué woon kër entier def naa ba dëkkuma ak enseignants yi élèves yi dëkkoon fin fond village laa goon récupéré ñu dëkk ak man may bokk ak ñoom yëre en tant que professeur ci biir dëkk noonu laa doon comporté wu pour bañ frustration bi feeñ sama élèves yu bëri am na fu mu leen dugal ñuy joob fépp ndax damay topp élève gëm sa bopp fa ngeen toll tey yéen jeunesse bi élection yi yéen a koy gagné noo leen koy gagné mooy lan surveiller élection yi du yéen ak benn parti yéen kese yéenay campagne yéen kese yéenay gagné boo leen dajeeg waa piir ci terrain bi c'est la fête o oh, c'est la grande fête boo leen dajeeg Déthié Fall ci terrain bi la grande fête boo leen dajeeg Khalifa Sall ci terrain bi la grande fête koo leen xeexal rek yéen a koy def deuxième ci élection bi code deux cent cinquante ku bëgg am ay voix yu bëri ci élection yi wala ku bëgg li muy wax feeñ ci élection yi si yéen waa Pastef si yéen Bassirou Diomaye fay lay jaar xeex ak yéen je vous avertis Anta Babacar Ngom la grande affaire bi code bi jomaay la de bu kenn nax affaire bi code bi jomaay la dugg nga ba gis li nga gis sa baay gisu ko xamu ko bul ko wax sa baay it sa jëkkër bu dee bàcc mais code bi code bi jomaay fay la gars yi bëgguñu ko li tax bëgguñu ko nag question de président da ngay présentable comme man rek ñu ne ma woon comme sama commencement laay fi gannaaw foog nga wotu pour présentable te am na ñoo xam ne seen seen cokk yee gën a yàgg sama rase te tey tey sénégalais complexé Macky Sall tas gouvernement andil ñu waat gouvernement kon demagul de bu organiser élection la 31 le deux bu ko neexee nag mën na ko fi fekk mu xaar deuxième tour wa ila mu démissionné dem y un cadre qui va diriger boobu tam y a l'état parce que l'état c'est pas le président ñun dañuy dem on est d'accord sur ça ay tas na gouvernement du événement def na lii du événement l'essentiel élection day am avant le 2 avril te élection bi ñoo ko war a surveiller surveiller boo xam Macky Sall kese moo mun a tax jàmm am Macky Sall rek a mun a dem si jàmm réew mépp génn tàcc ko ci kaw 13 heures et quart pile nga ne eh, alo alo ñu ne wéy nga ne ko félicitation moo petit Bassirou Diomaye fay bu la neexee bul ko wax président nee ko moo petit wala boy fils mu ne waaw nga ne ko félicitation les dés sont déjà jetés ma ñàkk sama nday Macky Sall ñun ñoo lay gunge ñoo lay gunge ba France laal la ñun ñii di wax ak yow ni tey di saaga sa ndey 13 boo woote woon ne Bassirou gagné na ma ñàkk sama ndey bu coup d'état amee Macky ñun ñooy jël sa garde génne la réew mi wa ilaa tamit ñu ñooy rey sa ndey jeex na c'est à prendre ou à laisser tubaab wañ nañu sa loxo li nga bëggoon yëpp mënut ta nekk yow it defal li la sa charte réew may defal li la sa askan wax dama la koy ñaan pour la dernière fois defal li la sa askan ñaan sa askan dañ la ñaan ne nañu dem élection léegi xam nga ne sa candidat ñàkk ne demal wax ak say booy sa sont te petits yow yaay président du Sénégal moom demal wax ak booy yi demal wax bassir Bassirou génnee ko nga dem toog ak moom wax tu organises des élections nga jox ko réew mi on passe à autre chose point final y aura pas un autre président si c'est pas Bassirou Diomaye Faye toi-même tu le sais les Français le savent donc il ne peut pas y avoir coup d'état militaire orchestré ou perpétré par la gendarmerie pour redonner à des civils pour def comme li ñu defoon Mali ay Jokundaa noonu nañ joxaat civils yi jiite je ne suis pas d'accord pour ça bu booy yi gagné ñoo point final man du ma couvrir pare def comme nu waa Turquie defoon bu armee wàccee bëgg a jël réew mi ngeen xam ne armée France la yéen ñëpp nañ leen ci teg suñu bakken bu ñu amaatee ay moor foofu am na si du si am armée bi armée moom moo gën a yomb xeexal ndax xoola tubaab ak CEDEAO ñëpp ay yónnee ñëw jël si ndey généraux yi moom ma jox leen tey secret boobu armée moo gën a yomb xeexal gis nga ni ñu def Kadhafi armée léegi sur moo gën a yomb xeexal ñëw jël si seen ndey la ñuy def yóbbu secret d'état fa ñu jëmee ñu nii parce que lan Bassirou Diomaye Faye morphologie je ne sais man daal am na daal yu ñu ma limal ci président ni muy mel seen président ndey Bassirou je suis au garde à vous monsieur le président de la république point final à partir de tey sama gars yi bu ñuy dem campagne président Bassirou Diomaye fay ngeen di bind ci carte bi parce que Sonko mënatul dem day faju ba si kanam incha allah le président Bassirou Diomaye fay sera élu le soir du 30 31 mars à partir de 13h15, le président Macky Sall doit féliciter le président bassir Diomaye fay pour que l'amnistie soit acceptée et pour que la paix règne au Sénégal. Wa ila lu fa mënti am Macky et son gouvernement et, son, et ses généraux vont prendre leurs responsabilités. Basumo, Basumo Mbare, Sukononko Abidje Iba Famali, Jaa.